day dem ay bi bés ay bi bés day neex daa bëgg dem curuxu curuxu ay luy curuxu curuxu bira luy curuxu curuxu ay luy curuxu curuxu dégg nga supporteru supporteru Lac de ñu ngi yuuxoo waaye xale xam na bés ci la juddu doomi déggal la <laughs> xam na bés moo ngi noonu moo ngi noonu ndeysaan ngi noonu japon la jugee dëkk ñoom Jet ñoom Zaki San ñoom Takamura ma buur booy ñaalum nar a indi ah, moom dañ ko wax mu wiiri jaadu na jaadu na ay waay taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou ay ñaari gaynde bu ñu daje ay ñaari gaynde bu ñu daje ñaari gaynde bu ñu daje ko ñaari booy ñaawa yi noonu ndeysaan daan na dégg Boy Niang yaa yëngal Pikine xale baa ngi noonu ndeysaan déggal père Bourkhane consigne yi muy joxe le treize damay dem vacances bés bee bëri pression damay vacances yi ma fi toog ndax bés boobu curux cirix la waaye kii luy curuxu curuxu Boy Niang curuxu doon dina ma ko wax dara jëy lësi dina ma wax luy curux curux ak ku muy curux ak kuñ fi curux foog mu leer càppa combat jànq la combat jànq la càppa coli la dañuy calculer nit ñi alaaji burxaan wadd ñëw na wax nañu dëgg mu ngi noonu di régler situation bi da dugg waaw dëgg la ñoom ñoom la kenn ku nekk waxoon nan la bi ñuy ñëw bu ñu ñëwee bu ñu may. booy ñaa nañu may ñaari minute. nanu may ñaari minute rek per Bourkhane bu duggee rek du baax ñun booy ñaar man ñii ñii laa bëgg ñu dugg ba pare. ñaari minute rek. walaay ndeysaan le grand coach. le grand coach. xale bi day wàcc. ndeysaan Cheikh Omar sérénité bi Boy Niang àndal man jaaxal na ma Boy Niang ku muy ree ku muy ñaawal may mais Boy Niang ku muy ñaawal lan la Boy Niang kan lay mbalee nii di la ree reeju reeju sew ji lu mu doon pour ñun xale yor ay sourire lu liggéey la regardez-moi le capacoli de de la ville de Pikine ndeysaan mu ngi noon def teg waay waay wàccagul waxul dara xew dara jëy rasulaay booy ñaamaa xew Cheikh Yérim ay maamam Cheikh naa sat bu da ko xool ne ko Yérim say mbir jaaxal na ma mu nga bàyyi ko ca kaw asamaan di ma digal wa amru woo min as-samaa'i xutbu rabbaani saaw sa xari ca bàccoli bi nuy naa la sa adversaire nee du yoon moom te jamono neex ba mu doon yoon ndax ci li nga bëgg doo ko amee ci waaw dal jaam rek ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu nga ngi noonu ñaari baat la wax na ñaari baat la wax peese na enjeu bés bi peese bi xam na ko bés boo xam ni mënul yombo déedéet kenn mënu koo yombal ku ko yombalal pël nax na la